waaw di ngeen gëm ni xeex moo fi am xeex bu metti moo fi am xeex bu metti metti moo fi am waaw waaw comme ni nga gisee nii xeex bu métti moo fi am waaw cool cool chaise tas na xeex bu métti moo fi amoon xeex bu métti moo fi amoon xeex bu métti assemblée générale APR Pikine tas li ngeen def ni mooy lan li ngeen def ni mooy lan. waaw loxo sànq doon doon jox ñaari baat

waaw comme ni ngeen ko gisee nii ah bon xeex moo amoon assemblée générale APR Pikine tas xeex bu métti dóorante ay chaise chaise yaa ngi nii gis ngeen ko lu ci bëri yàqu na oh, chaise bi ci bëri yàqu na xeex bu métti moo amoon waaw bon lu ko waral xamaguñ ko on va de voir. Guys, full white, full. Omar dañu leen filmé rek dama wax lekk daa ñu jël moom léegi mu ngi jël yow yow wane yow kii quoi de la première kii boo def ay gars yi jël mu ngi wax. Thank you.